ci sunu ñetteelub xaaj ci leeral maanaay maxaaliqu niiraan sunu wu ñaareel bi nag ñoo ngi daandile woon sunu kàddu ci xeeti jikko yi nga xam ne jikkoy caay-caay la mën a yóbbu nit ki sawara te yàlla araamal ko ci bépp jullit bokk na ca yooyu yàlla araamal fen wax lu dul dëgg ak jëw ak rambaaj ak rëy ak naw say jëf di gis sa bopp ak ngistal ak ndéggital jëf ba noppi dem nettali ko ngir ñu naw la ca ak bañ ab jullit dafa araam iñaane ab jullit dafa araam gis ngëneel ci mbindeef yàlla yi kum mën a doon loolu it dafa araam yi jikko la yoo xam ne yàlla da koo araamal ci bépp jullit bokk na ci yooyu araam yàlla araamal ci jullit li ñuy wax regeju regeju mooy di junju sikkus nit ci sa bët moo xam na ngay piis di wane ne xool leen sikkisee te mënu koo tudd ci làmmiñ nga koy junj ci sa bët yooyu dafa araam ak ngalaju moom it di junj si sikkus nit ci saw làmmiñ di génne saw làmmiñ di junj sikkus nit ba ñaawal ko gi mel noonu loolu it dafa araam nekk noonu fo dafa araam fo nag moom am na ci buñ sib am na ci bu araam am na ci buñ daganal naka noonu li ñu wax saboote nit ki di ko reetaan it dafa aram ci julit njaaloo momit dafa aram ci julit ak it di e, bayyi xel soxna so xamné ne koko manam di cokas soxna so xamné ni nii la ab jambour bo xamné ko ni man nga ko tak soxna moy ko ñu wax araamu la ku ko araamul koo soxna nga di ko cokkaas ci kàddu walla cib xool di ca bànneexu loolu it dafa araam moom daal jigéen ji nga xam na nii tëkkoo ko te araamu la ngay bànneexu ci di ko xool baa ngay bànneexu ci kàddoom moo xam téléphone la moo xam lu mën a doon loolu dafa araam lekk alali nit ci lu dul teeyuk bakkanam lekk ko ci par loolu dafa araam ci jullit muy lekk alali mbokkum jullitam ci lu ko neexut ndata loolu sëriñ bi nee ne mën naa andi nit ki mbugal mu méttee métti naka noonu lekk alal ci diine turu diine nga lekk ci alal loolu it dafa araam maanaam loolu nag am na ci ñaari pàcc benn bi mooy ngay laaj alal nit ñi ne da ngay tabax jàkka wala da ngay tabax daara te defoo ko ca ba ca des nag mooy nga taxaw taxawaayu diine ñu di la xoolee bëtub diine ba jël say seeni alal di la ko jox ngir diine te fekk yow kañ la jàppee ci diine ndakate yow nekkoo kooku te yow ci sa bopp xam nga ne li tax ñu la jox alal nekkul ci yow kon alal jooju lekk ko day aram naka noonu it li wax tinu maanaam def ay arrangement ci kayiti nit defoo ca yenn fare ba noppi laaj ko ca xaalis loolu it dafa aram waaye nag bu la nit dee toppatoo dara nga di ko ci sa bërib lijjanti paas ya nga koy def ak frais yang nga koy def moom boo ko ko laajee dara nekku dara sab xamee bu bari ak say lijjanti rek moo tax nga mën a lijjanti kayit ya ba noppi laaj ko ci xaalis moom lañuy wax tinu loolu it dafa araam nekk noonu lu mel ne waxtu julli tepp yàlla yi lu mel ne waxtu julli nga yeex koo def loolu it dafa araam yeex a julli dafa araam ndax julli ñaari waxtu yi ñaari xaaj la moxtaar ak daruur yi daruur yi nag moom képp ko ci julli te amoo woon ngànt ca moxtaar ma am nga bàkkaar ca daruur yi ga darule ga nga xam ne julli nga ca am nga ca bàkkaar mu ne moo tax mu wax ne kon nag boo yeexee julli wenn waxtu ci lu dul ngànt lu wér waaye nag bokk na ci yooyu araam mooy bañ a doyadal benn jullit te bañ a gëdd benn jullit bañ koo ŋàññi bañ koo xas ak bañ koo tiitloo mu ni yi daal yoo ci def nanga ko tuub te yaa xam ne yàlla araamal na ko ci bépp jullit jullit nag sañoo koo tiitloo ak di ko wax lu koy ragaloo lu dul ci àqay sariya bu dee nag moom daa jalgati sariya nga di ko yar di ko teg ci yoon te loolu sax baa koy sañ di ko ci tiitloo ak di ko ci xupp loolu moom dara nekku ca sëriñ bi nee ne bokk na ci yi nga xam ne nii yàlla gàll nañu ko tañ war koo sàmm ci sunu jëmm mooy sunu làmmiñ war nañ ko sàmm ci waxu ñaawteef ne bokk na ci wax yu ñaaw yi nag wax yu bon yi giñ ci mpase ak giñ ci goreel su ma namee def nangam mooy fase naa sama soxna su ma namee namee def nangam mooy goreel naa sama jaam xeetu giñ yooyu ci wax yu ñaaw la bokk moom it dafa aram sëriñ bi ne bokk na ci li xam ne yàlla gàll nañu ko suñ jëmm mooy ñu sàmm sunub gis ci lépp lu aram lépp lu araam rek yàlla waral na ci ñun ñu sàmm ci sunub gis bañ koo xool waaye nit nee nañ wattu di xool ab jullit xoolub jëppi xool ba koy lor boo xam ne nii boo ko ko xoolee rek mu daal di mu daal di tiit wala xol ba mën na koo indil loraange lu ne koka day ab julit boy way aji togn ko xamne ab togn kat la moom waxuñu xol ko xoolub jëppi sax waye sañ nga ko jamm maanaam sañ nga ko tongu jamm ko wan ko gina waye nak nga def ko ngir yalla ngir la biiri ko rek mu bàyyi mo yalla goge bàyyi caay-caayam goge mu del ci wat ta nga bañ ko def ngir te ko ci sabakan mu ne bokku na ci yin wara a moy jaxaso ab say saay ndax loolu kat nee na yellut ci ab taalibe mooy jaxasoog ab saay-saay nee na it na ngeen wattu cër yi seen biir seen làmmiñ seen pëy seen ñaari tànk seen ñaari bët seen ñaari loxo seen ñaari nopp na ngeen koy wattu di ko jëmee ci lu aram na ngeen ko sàmm mukk ba du ngeen ca mooy yàlla ndax kon da ngeen eh, jariñu daane cër yooyu kat cër bu ci ne dafa jaakaarloog ab buntu ci sawara kon boo sàmmee cër yooyu yàlla dana la fegal sawaraw ëllëg mu ne képp koo xam ne ni nag mooy na yàlla ci benn cër ci yooyu cër boobee bunt ba mu jàkkaar lool fa lay duggee te kon dana yóbbaale cër yi ci des yëpp kon daal cër yëpp lañuy ñuy boolee sàmbanoo ndax ku ci ne daa jàkkaarloog ab bunt ci sawara te boo ca mooyee yàlla moom cër boobee mu daal di daa jaare ci bunt ba mu jàkkaar lool yóbbaale lépp kon nañ ko euh, bàyyi xel bu baax te wattu ko sëriñ bi képp ku ne ci ñun ci nun dangaa war xam ne ab sàmm nga moo xam sa bopp sàmm nga ci moo xam njaboot gi nga yor moo xam ko mën a yilif yaay seenu sàmm yaa yor seeni responsabilité te it boo liggéey yàlla dina la ko laaj nga bàyyi xel bu baax ci sàmm googu mu ne seeni biir na ngeen ca moytoo def lu araam ak lu lënt loo xam ne ni daal xamu leen dagan na xamu leen dëgganul na ngeen ko moytoo def ci seen biir ak lépp lu araam kon daal lu araam ak lu lënt ci boppam sëriñ bi tere na ñu di def euh, ci biir nee na nañ farlu ci sàkku lu lew ndax sàkku lu lew kat mooy tax a jege yàlla waaye lu lew loolu nag buñ ko sàkkoo ba jot ci nee na nañ ci farlu lool ci niñ koy jëfandikoo ñu gàttañ lu ci bañ cee regg li ma yor lew na ma rek tax nga di ca lekkee la neex loolu sëriñ bi nee na nañ koy wattandiku bu baax a baax nañ farlu daal ci baña a regg ci liñ yor donte lu ñuy lew la mu ne ndax regg kat ma ndax nit kat ak reggam mooy tàmbalikaayu bépp ayam ay wu ne daal ci wu dal nit ki mën naa bàyyikoo ci regg ndax waxoon na la ne bakkan moom ngaanaay lim yor ngir songu jaam bi mooy regg saa bu nit ki reggee rek bakkanam dal di koy moom nee na regg it am na juróom benn yëf yu ci nekk yoo xam ne ni ay am na ay gàkk-gàkk yoo xam ne ni mënee su koo lim waaye dana ci indi juróom benn ngir nga man koo jàpp yoo xam ne regg moo koy indi ba ci jiitu mu ne regg day yàqub xol day tëj ab xol ba ay leer du ci mën a tàbbi waaye regg dafay yàq am xel regg dafay yàq ak mokkal maanaam dafay fëttuloo yàqam xel di tëj ab xol ton loolu kon ñett yooyu bokk na ci nga xam ne nii regg daf ko indi waaye regg dafay diisal ay cër dafay diisal cëri nit ki ba du mën a jaamu yàlla du mën a am def ay gëstoom ci xam-xam yu am njariñ yi juróomeel ba mu ne regg dafay dimbale saytaane ba saytaane mën a agsi ci nit ki juróom benneel ba nag mu ne regg moom dafay eh, kàttanal bànneex ba nit ki di topp bànneexam mu ne nag gàkk gàkk yooyu nga xam ne ni regg indi na ko yépp na ngeen koy wattandiku kon regg lu ma tax mooy moytandiku la ndax loolu lépp ay gàkk gàkk yoo xam ne nii regg moo koy indi mun ñu soññ nag ki ñu sàkk lu leew mu ne sàkk lu leew nag day farata ci bépp jullit ci lu dul genn defe ku ne war naa xam ne moom sàkk lu leew farata ci bépp jullit ndax que nit ki munta jariñoo xam-xamam wala ak jaamu yàllaam ci lekk lu araam lekk lu araam moom fekk nit kaa koy def xam-xamam mënu ko amal njariñ ak jaamu yàlla mënu ko amal njariñ mu daal ci teg ne kon na ngeen wattandiku lépp loo xam ne nii wóolu ngir ne dafa araam wala ngeen jortu ne dafa araam lépp lu ngeen wóolu ne dafa araam rek wala ngeen ne dafa araam loolu na ngeen ko watandiko na ngeen doy looloo xam ne nii rek mën ngeen caa dëgëral seen digg ba mën a jaamu yàlla te bañ caa xaabaabal di ci topp bu baax kon nag na ngeen jéem a doy lool yi nga xam ne mën ngeen caa dëgëral seen digg rek ba mën a jaamu yàlla ngir faj lor waaye bu leen ko topp ba xaabaabal ca ndax lekk kat jamono ji ko aji lekk ji lekk mën naa neex ci moom lool waaye nag dana mujj ginnaaw ba di ay xayta yu bon yoo xam ne ni boroom du ko sax euh, bëgg a gis moo tax mu wax ne nag kon na ngeen yeewu nag def attention bu baax ci seen cër yi te xam ne seen cër yi boo lëgee cër bu ne dana taxaw di seede ca kanamu sun borom yawma tashhadu alayhim wa alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kaanu yamaluun loolu la alquran wax bu ëllëgee seen cër yi seeni làmmiñ seeni tànk seeni loxo danañ seede la nga xam na nii doon nañ ko def kon loolu lépp lu mat a bàyyi xel la loolu nag mooy doon eh, ñetteelu xaaj bi foofu lañ ko yambalee troisième partie bi buñ delsiwaatee daal di eh, tàmbali eh, ñett ñeenteelu xaaj bi jëmee ko ci mu tàmbalee nag ci cosaani cosaani eh, yi yeggale nit ki ci yàlla maanaam soobukaay yi nga xam ne ni mooy àggale nit ki ci yàlla te mu doon fukki cosaan doon soobukaay yi mën a àggale nit ki ci yàlla bu ndil siwaatee tàmbalee fi sunu ñeenteelu jotaay wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu